Omar na nga waaw Thioune naka sa papa ça si jàmm ana Cheikh bi moom mbaa waaw mu ngi kër mbaa a ngi góorgóorlu waaw ñu ngi góorgóorlu seen papa bi may mujj a déggante ak moom de li may wax ci yéen neexuma dara ah, xaw ma nag ku mu ci yéen ah, na daal koo xamante ne daal boy la nga jëm ni léegi xam nga lu bëgg hmm. bala ngay dem kër Ablaye Naar waññeeku léegi nga delluwaatal ba kër ga neel sa papa sa papa nee na hmm. préfet da soxla tey amul problème 15 heures. Hmm. lu mu jàppoon na ko bàyyi te ñëw préfecture. incha allah dégg nga. amul problème demal nga diggante ma loolu ba noppi dégg nga. soo soo noppee nga soog a dem. loolu nan nan nan nga ko mën a. laa def yow ma yóbbante sa doom yóbbante ma ko sax dama ko yónni dama ko doon fekk muy dem ma wàññi ko nekk demal ni sa papa préfet dañoo soxla man ak moom biye màkk yi tey lay clôturer te man ak moom la bëgg a amal jotaay bu yaatu ma ak moom. waaw ma ne ko demal waxal ma ko sa papa. ma toog di la xaar buntu préfecture ba léegi gisuma la. man sama ban doom nga ko wax. doom ko ko wax nga lan la xam naa sa jukko sa jukko ji bàyyi ko. yow lu nu boole nga lekk yow eh, déglu ma yow da nga dof wala lan yow man ak préfet ak yow ñoo waroon a toog ñëwuloo moo tax ma ak préfet mujj ñoo toog dugguma sax ba léegi. Ah, ana bee yi léegi. ah jeex na. waaw sooy fu tëraay bàyyi ko de sooy fu tëraay na nga génn béy de. kañ dem ci kañ dem ci préfet. wala wala awutu préfet ma fonto xam nga lan la. ban doom nga yónni sa doom waaye ban seex man damaa gis seex man damaa gis seex. yow yow méritoo am seex man damaa gis seex. billahi wallahi mérité woo am seex. xam nga la man xam naa la buy ma bu fekkee da nga yor billet ma ko rek xam naa la. ngañ àndan ma ak ñaari. ngañ déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma ngañ. ngañ lii ak koor gi yàlla xam na ni buntu préfecture laa toog di la xaar di la xaar ba waxtu weesu ma nar dugg ñu ne ma yéen ñaar la ñu inscrire yéen ñaar yéen war a duggandoo préfet recevoir leen te te ma xam la leen waaw recevoir bu spécial la ñu waroon jox ñun ñoo waroon a mujjee. man damaa gis seex yi. te yàlla xam na ni mu ngi kaay. na ngeen waaw ça va. Pape Mor waaw yow dama demoon fee sama kër. bi ma la yóbbantee sa baay. kër nan ma ko ko wax. ba ma wàññi la dem ba nga doon dem. lan mu lan moo tax mënu woon wax rek ni doo ko wax. sama papa du man da ngaa juum de. xam nga lan la yéen moo tax yéen bu leen yónnee mënu leen dem fi leen yónnee du nga ndax mën leen dem fi ngeen yoon yow dajewu ma ak yow sànq. ci bopp koñ bi nga ne ma yaa ngi seet sànq benn xarit bu ñuy wax Aliou xaw ma lu mu doon. papa da ngaa yow laa ni demal ni sa papa ne ko man maa ngi koy xaar ca préfecture. yéen la moo tax yéen bu leen yoon yow yow yow yow yow da nga def wala ah. Eh, yow Birisa Amar Birisa la moo tax bu leen yoon da nga def bu leen yoon la moo tax bu ngeen def bu leen yoon man la tax bu leen yoon da nga def bu leen yoon la moo tax la bu ngeen def bu ngeen def bu leen yoon li mu la ah la moo tax fu la yóbbu mënoo def fu la yóbbu mënoo def fu la yóbbu ah du bii ba yow kan mooy. séeréer bi wàll Pape du man Pape du man Pape du man Pape. ñam nga yow boo lëggee bu la yónnee dina la fa la yónnee boo lëggee bu la yónnee di nga ne fi la yónnee boo lëggee bu la yónnee di nga ne fa nga yónnee. bi yow boo leen sonn du ma sonn. Pape du man da ngaa juum. boo leen sonn du ma sonn. da ngaa juum da ngaa juum Pape du man du man Pape du man. kaay kaay. du man. waaw la xew. waaw la xew. kaay kaay. Thank you.